moo tax mu ne lay alayka warul warula yow yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam hudaahum seen ak njub yow irshaad rek moo la waral muy gindi waaye tawfiq ak njubal ci yàlla ne walakin laa li fi nekk yàlla yahdi mooy gindi man yashaa'u ku ko soob ak ak ngindeekum wa maa bu leen dundale wa maa tunfiqoo lu ngeen dundale min xayrin ci xiw fa li anfusikum ñaal na seen bopp payoor nga yéene ko moom wa maa tunfiquuna waaye bu leen dundale illa ibtigaa wajhi laa lu ngeen sàkku ci jëmmi yàlla ja waaye bu leen ki sàkku lenn bu mu nekk tagg bu mu nekk maanaam ngistal wa maa tunfiqu lu ngeen dundale min xayrin ci yiw yuwaffa def na matal ilaykum jëm ci yéen ak payooram wa antum yéen di laa la mun a deefut tooñ leen ba leen di wàññil lu baax lu ngeen def wala ñu leen di yokkal lu bon lu ngeen defut bàyyi na aaya jooja léegi nag mi ngi wax sarax yi ñen a gën a yell pour ñu jox leen ko léegi nag mu xasaf muktadama bàyyi fa xabar ja moo tax mu ne sarax yi lil fuqaraa yi aji nekk lañu ñeel way ñàkk ñi allatina ña nga xam ni oxsiroo gaweef na leen fi sabilillahi ci yoonu yàlla tëj nañ seen bakkan lu dul ci jihaad yi rekk ak sàkku xam-xam te mooy ahlu sufa matoon na ñeenti téeméer abu hurayra moo doon seen njiit mbooloo lañ moo xam ne ña nga dëkkoon ca peron wu jàkka ja ndax dañoo gàddaayoo woon bàyyi ko ak gox ya ko wër bàyyi fa seeni xalal ñëw dëkk ca jàkka ja amuñu dara xadis bu wàcc yonentu wax ko ñoo koy njëkk a mokkal aayam alquran bu ñëw ñoo koy njëkk a mokkal nekkoon nit ñoo xam ne loolu rek mooy seen liggéey ak jihaat yi laa yastatiyoona dara ban tukki fi fil ardi ci suuf ngir yaxantu ji wala ngir sàkk dund yaxsibuhum dana njortu leen aljaahilu kuréere seen mbir axniyaa ngi di way xoomal minat taafufi ngir fegu rek waaye boo leen gisee xam ne boo leen lañ bëtu xam ne amuñ dara moo tax mu ne taarifum danga xam leen yow mi may wax ak bi si meewum seen màndarga ci ak wàcce seen bopp ak jeexitalu coono laaye sanoon duñ laaj sa nit ña ilhaafan bay ta njamal maanaam laaj duñ laaj rek la bëgg a wax duñ laaj aslan moo naa sa nit ña ilhaafan bay ta bay tanjamal mooy duñ laaj sax rek wa maa tunfiqu lu ngeen dundale min xayrin ci yiw fa inna laa naka yàlla alimun aji xam la bii ca loolu de kon aaya boobu mi ngi wàcc ci ahlu suufa ñi nekkoon ñu néew doole dëkkoon ca peron wu jàkka ja kuy saraxe rek jox leen bu reer jotee yonantu bi di leen séddale ñiy dem ci kër yenn ci saxaba yu am doole di fa reeree ji waaye duñ laaj kenn dara ndax diina ji diina ju bañ laaj la yonentu bi daana wax ne kenn ci yéen jël buumam dem ca àll ba taxañi aw say xenu ko ca gannaawam nga ñëw jaay ko lum ca am moo sëgoo ko moo gën muy laaj nit ñi jox nañ ko wala joxuñu ko li an yaxusa ahadukum xablahu fa yazhabu fa yaati bi xasamati xatabin ala zahrihi fa yaqufu biha wajhahu xayrun lahu min min an yasala annaas ashyaahu am manauhu kon laaj baaxut moo taxoon ñoom daanuñ laaj kenn dañoo toogoon rek fegu maanaam tànn ak ñakk dund ko ñu bari nag ci ay sang tànn ak ñàkk moo leen gëna woom ngir bëgg yàlla ak ngir roy sunu su yonantu bi sallallahu alayhi mi nga xam ne daana wax ne yàlla jox na ma ñaari métier métier mu njëkk mi mooy ñàkk ñaareelu métier mi mooy jihaad te métier moomu la ahlu sufa moo tax mu daan wax ne lii xirfataani al faqru wal léegi nag moo waral li nga ciy déggee juróom-benn ci juróom-benn rek lay xéwénee juróom-benn bi ci njëkk mooy xam-xam maandu tabee tuub muñ kersa xam-xam li muy baax baax li koy xéwénal mooy jëfee ko waaye xam-xam buñ dul jëfee amul njariñ maandu baax na waaye ci buur yi la gën a baax rawatina nag suñ buuri africain yi nga xam ne li ci ëpp ki ñoom xamuñ àqu nit tabe baax na waaye ci boroom am-am yi la gën a baax tuub baax na waaye ci ndaw la gën a baax muñ baax na mais ci ñàkk la gën a baax ker sa baax na mais ci soxna yi la gën a baax moo waral xam-xam li mu bari bari bu ko boroom jëfewut moom néeg bu amul toiture ñoo yem lu muy gudd gudd tere bu yàlla ji tawee taw sa kaw bu naaj wi tàngee taw tàng ci sa kaw kon xam boo xamee na nii tabaarakallaahu borom du ko jëfee moom néeg bu am néeg buñ teraasul ñoo xëdduñu ko buur bu mànduwut mook teen bu amul ndox yem teen lu mu rëy rëy bu amul ndox rek amul njariñ naka noonu ku xoomal ku tabexut moom niir wu amul tawayam lu xiin rëy rëy bu tawut amul njariñ naka noonu tamit waxambaane bu dul tuub moo garab gu amul meññatayam ku ñàkk bu muñut mook sondeel bu amul leerayam sondeel baa ngi nii rek mais amul lumière amul njariñ jigéen gu amul kersa moom ñam wu amul xoromayam kon nag war na ci ku xoomal fu mu toll nay taw ci niir ci niiru koom-koom bi di ko wàccee ci xolu ñu ñàkk ñi ndax loolu man koo fegal musibaay àdduna ak mu àllaaxira yàlla nag bàyyi na ko dugg ca ñay joxe seen alal ya moo tax mu ne allasina gaa yi nga xam ne yunfiquna dañu dundale am wàllum seen alal da ko ca badal ñi ne da ko caa naatal bi layli ci guddi wa nahaari bëccëg si ran ci nëbbu wa alaaniyatan ak feeñ fa lahum aji nekk la ñaan leen ajruhum seen payoor inda rabbihim fa seen boroom wala xawfun déet ragal xalim di nekk ca ñoom fii ci àdduna wala hum déet ñoom tamit yaxsanu nañu jàq ëllëg ci àllaaxira de aaya boobu mi ngi wàcce ci Aboubacar dafa amoon ñeenti moom abu ñii mu ngi wàcc ci Ousmane ibnul Affan ñii ne mi ngi wàcc ci Aboubacar ñii ne mi ngi wàcc ci ibnu Abi Talib waaye mën naa valable ci ñoom ñépp ñu ne Aboubacar dafa amoon ñeent fukki junney diinaar fukki junne yëpp mu saraxe ko guddi yeneen fukki junne ya mu saraxe ko bëccëg yeneen fukki junne ya mu saraxe ko ci nëbbu kenn yëgut ko yeneen fukki junne ya mu saraxe ko ci feeñ ñépp jàkkaarloog moom mu wan ne daal danaa joxe ci ñeenti xanam yi ñuy joxe bu ma ca yàlla fay rek ma mën a gañe ñu àlliyu la dafa amoon moom ñeenti dërëm benn bi mu saraxe ko guddi benn bi bëccëg benn bi ci nëbbu benn bi ci feeñ te waxoon naa la sarax yi na bëgg feeñ gi sarax su feeñ su wóoree doo ngistal te boo defee ñu roy la ca feeñ a gën nëbbu sarax su nëbbu soo wóoree boo feeñee am ca ngistal nëbba gën feeñ foofa kon moo taxoon Aboubacar nag moom dàkk yàlla ci ñeenti xanam yépp guddi bëccëg nëbbu feeñ yàlla bàyyi na loola mi ngi wax ak ñi nga xamee ne ni tabaarakallaahu dañuy jëfandikoo riba di leble dërëm ak ñaar dërëm moo xam riba nasiya la wala ribaawul fadli la fadlu mooy leble dërëm fayeeku ñaar dërëm kooku xaraam na nasiya mooy loo xam ne nangu na ëppalante waaye nangu wut yéexi sharia nangu na benn saakoob dugub ñeenti saakooy gerte waaye nag yeddan bi yeddin léegi-léegi rek amut dem ma dem ñëw léeg-léeg nga gis ko ci àll ba ku joxe kilo dugub ñu jox ko ñaari kilo jën dagan na waaye ma dem ñëw bu ci amee rek xaraam na léeg-léeg nga gis kuy tukki yore euro bëgg ko koo defal CFA wala mu yor CFA bëgg ko def dollar dagan na ëppalante ga ca xew waaye nag yeddan bi yeddin jox ma rek ma jox la léegi-léegi am ma dem ñëw lislaam lu mu la tere boo ko bàyyee am ca problème am na ñuy bëgg a tukki yónnee fukki junne CFA ñu defal leen ko dollar wala euro ñooña far jaaree noonu daw ñoom ca xaalis ba ñun kenn xamul nuñ toll loola nag buñ ci jëfandikoon lislaam kontal ma ma kontal la su boobaa benn problème duñ ca am kon toujours lu ëpp ci xeet yi bu ñu bokkut dagan na ëppalante waaye daganut yéexi suñ bokkee benn xeet nag daganut ëppalante dafay nekk rek yeddan bi yeddin mislan bi mislin su boobaa loolu kon lu jar a xel la moo tax mu ne allazina gaaya nga xam ne yaakuluna dañuy lekk a riba riba moo xam na si la wala maanaam ribaal fadl la ni ko fuqahaa yu jàngalee bu ñuy dekki ëllëg laa yaquumuuna duñ mën a taxaw baxee ko ci seen bàmmeel yi illaa lu taxawaay boo xam ne kamaa yaquumu comme nay taxawee li si nga xam ne tax xabatahu dana nërmal ko seytaanu seytaane minal massi ci saddum junne daalika loolu boo gisee mu wàcce seen kaw bi annahum ci sababu naka ñoom xaalu dañ daan wax ne innamal bayxu daal naka jaay mislu riba moog riba ñoo xam rek yaa jaayoon fukki dërëm nga jëndee woon daal di jaay am ca bénéfice u juróomi dërëm yaa leble woon juróomi dërëm am ca bon bénéfice u yeneen juróomi dërëm muy fukki dërëm moo tax yàlla def ko muy ak su tashbih ngir mu baalaxal ko waaye maanaam innama riba mislul bay'a ñoom nag dañu jàpp ne kon ñaar yëpp benn la yàlla ne déedéet wa ahala daganal na allahu yàlla al bay'a njaay mi waaye wa harama haramal na a riba riba fa man shaahu képp koo xam ne dikkal na ko mawxisatun ak waar min rabbihi gu bàyyi ko sa boromam fantahaa mu lu bàyyi lekk riba fa lahu aji nekk la ñaal ko maa salafa jiitu woon njëkk maanaam tere ga wa amruhu ndigalam mbiram mooy mbiram jéggalam ilallaahi jëm na ca yàlla wa man aada képp ku dellu nag di lekk riba gannaaw bi aaya leeree naññ fa ulaayka yooye gaay asxaabu naari ñooy mbooloom safara te hum ñoom xaaliduna way béel riba ak njaay mënuñoo xem ndax yam xaqu dana gotti allahu yàlla riba riba wàññi ko barke ba moom moo waral dafa niru luy yokk waaye luy wàññeeku la wayur bii dana dolli asadaqaati sarax yi dafa niru luy wàññeeku waaye lu dolleeku la wallahu yàlla yuxibu du yool kulla kafaarin képp weddi haa kon kuy daganal riba athimin koo xam ne ab kàccoor la bu bari bàkkaar kon riba ngóog nekk loo xam ne lu bona bon la nga xam ne bokk na ci bàkkaar yi gën a màgg nga xam ne yàlla yonentu baa ngi wax ne yàlla rëbb na kiy lekk riba ak ki nga xam ne moo ko koy lekkale ak kiy dox commission ba pour mu sotti suñ jamono ji nag daanaka li ci ëpp riba la ñuy jëfandikoo rawatina maanaam ci banque yi ci riba lañuy ñuy leble ci riba la ñuy lebee loolu lépp nag dafa xaraam ab jullit di ko jëfandikoo waaye jullit bu nag bu demee ba loru ba bu ca amul kenn ku ko mën a lebal sans intérêt te kii leble intérêt rek moo fi sës te bu ci dugg suturaam xaweeku du am lum dundee kon medd la mu taxaw ci kanamam medd nag li muy xaraam xaraam boo loroo dagan na nga mën koo jëfandikoo medd na kenn du ci dëkk waaye nag di leb ci banque bi yokku rek sa am am te yaa ngi am foo dëkk am loo dundee kooku moom dafa xaraam ndax am-am kenn mënu koo àppal loo am na ca kanam waaye lem ñi dafa la pere mu jeexaat nga jëlaat continuaat ci nekk ca rek kooku dafa xaraam waaye boo loree ba loo dundee amatoo ko te kenn mënu laa lebal sans intérêt kon nag moom dana soppeeku jëmmi meddi bu taxaw ci sa kanam waaye nag boo ca xettalikoo rek am lu dagan ba ko gaaw te nga sori ko ndax ñoom jaahiliye ñoo daan jëfandikoo loolu kenn ci ñoom day ñëw leb nit mu lebal ko bu diir ba jotee mu war a du am mu nekkoon kon nañ yokk bor bi te yokkaat bi maanaam nañ yokk diir bi yokkaat xar mi kawar léegi nag ñu yokkaat ko bor ba day dem bu fekkoon ne tey fukki dërëm la man naa dem ba nekk ay junne junne loolu tamit mooy système mu banque yi rek ndax système mu yahut la ci loolu rek la ñuy dund mu nekk lu xaraam lu bon moom riba nag ci gisin dafa niru luy yokk xalal saraxe ci gisin dafa niru luy wàññi xalal ndax yore woon 10 mille francs saraxe 5 000 wàññeeku na yore woon dix mille francs leble ko ñu indi la yeneen dix mille muy vingt mille niru na ne yokku na yàlla ne lii niru ak yokk wàññeeku la yam xaqulaahu riba lay niru ak wàññeeku yokkute la moo tax mu ne wa yurbi sadaqaat moo taxoon xadis ba ne yàq allaha yaqbalu sadaqata wa yurbiha kama yurbi ko mahrahu yàlla dana nangu saraxi kenn ci yéen mu nekkoon lu tuuti mu yokk ko ba mel ni kenn ku yore woon aw moolu fasam mu dëgg génk ko ku mën a am ak ndénkaane kooka toppatoo ko ba mool wa xëy nekk fas wu mag a mag a mag kon tamit sarax yi noonu lay mel ëllëg mag ñi ñu ragaloon riba lañ abu xanifa mos naa lebal benn waay lu mat junney dërëm yoo xam ne weccat la ci waxin mu dem di ko fayeeku kooka fayee ko junney dërëm yoo xam ne këyit la mu ne ko fayee ma ni ma la lebaleexoon rek waaye su ma ko jëlee dafay soppeeku maanaam dafay dugg ci bunta bu riba ngir ragal ko kon moom ma ngay daw lu dagan ngir bañ dugg ci loo xam ne ni lu lënt la kon mag ñi kenn du ñoom moo taxit li ñu am rek maanaam ñi man koo am moo taxoon yonent bi tere na njëgu deret kenn du jaay deretam léeg-léeg nga gis nit ñàkk deret ñi may deret dagan na waaye bu ko jaay dagan na xaraamal na tamit luñ fàggoo ci ak koo xam ne day jaay boppam di ca dajale alal comme tey ñenn ñi nañ leen mayee carte ñiy wër di cagatu loolu tamit lu xaraama xaraam la maanaam jëf ca xaraam na lañ cay dajale xaraam na xaraamal na tamit bi maanaa lekk riba ak ki nga xam ne moo ko koy lekkale ak ki koy bind ak ñaar ña koy seede ak maanaam lu ñu tuddee njam yi jigéen ñi def ci seeni tuñ yi yooyu tamit xaraamal na ko kon mu ne riba juróom-ñaar fukki bunt la ba ca gën a suufe mooy jigéen maanaam góor gu sëy ak ak waajuram kon loola kenn xamut bàkkaar bu toll ni riba na mu toll bu doon juróom-ñaar fukki bàkkaar ba ca gën a suufe mi ngi toll ni nit ku sëy ak waajuram wu jigéen loola nag kon foofa la ngoon moo waral kon ñun ñëpp nañ góor góorlu tuub bàyyi riba tey dund ci loo xam ne lu sell la ku ko def rek yàlla mën na laa dimbale te nag koo gis muy lekk riba buy dekki ëllëg maanaam day mel ni kuñ sadd jinne muy daanu waaye tamit mag ñi ne nañ kuy dundee riba muy xalal ju xaraam soo xeewoo bees ci sa kër si sa néeg ci sa lal doo a taxaw dangay dox di kayang-kayang yi kon tamit noonu la mel yataxabatuhu shaytaanu minal masi mu tofal ca ne moom yàlla moo tax mu ne inna lazina ña nga xam ne aamanoo gëm nañu wa amiloo ñuy jëf saalihaati farataaki naafale yi wa aqaamoo ñu nangoo taxawal asalaata julli yi wa atoo ñu joxe sakaata asaka lahum aji nekk la ñeexal leen ajruhum seen payoor bi rabbihim fa seen borom wala xawfun deen ragal alayhim di nekk ca ñoom wala hum deen ñoom tamit yaxsanoon na ñuy jàq ëllëg ci seen kanamu boroom de yàlla bàyyi na aaya jooja aaya jii mi ngi wax ak nga xam ne dafa dañoo leble woon riba ku mel ne la ak Ousmane ibnul Affan dañoo leble woon ñam ci tàndarma ñi dem ba diir ba waa ji ñëw war leen koo fay ne leen genn wàll gi laa mën a dugal su ma joxee lépp sama kër dara du fa des léegi bàyyi leen ma joxe genn wàll gi geneen wàll gi ci des ñi yokkaat diir bi te yokkaat tamit bor bi maanaam daal fukki saako ngeen ma lebaloon ci tàndarma juróom yaa ngi nii juróom yi ci des nag nañ ko bàyyi ba weer wi dee su may ñëw di ko fay si joxe fukki saako ñi d'accord ñoom ñaar ndax booba riba xaraama gut biñ demee nag ba weer way dee aaya ja wàcc ne nag léegi leble ci riba ak fayeku ci yëpp xaram na ñoom nag ñu ne ah bañ koy leble yàlla xaraamagul toon ko kon dañoo bëgg a fayeku ba pare door a commencer appliquer aaya bi loolu danay dal ab tuxkatu cigarette wala kuy naan sàngara tabaarakallaa wala ku takk lam wala ay seen wala jaaro yu ëpp nga waar ko ne ko lii baaxut mu ne su ma demee kër ga tekki ko wala maanaam bu paquet bi jeexee ma door a bàyyi tux kooku narta bàyyi waaye ab jullit fu ko yoon dabee rek dafa war a taxaw moo tax nag ñoom bañ bëggee na dañuy fayeku door a appliquer aaya ji yàlla wàccee aaya ji dal ci seen kaw ndax ñoom xamee guñ ko woon noona moo tax mu ne yaa ayyuhal na yéen gaa yi nga xam ne amanoo gëm nañu alquran di Usmaan ak Abbas ak ku mel ni ñoom ittaqoo na ngeen teet laaha yàlla ittaqoo na ngeen ragal laaha yàlla wazaroo ngeen bàyyi maa baqiya li nga xam ne des na mina riba ci riba gi ngeen leble woon in kuntum dem nekk ngeen mu'minin di way gëm yàlla de in kuntum dem nekk ngeen mu'minin di way dëggu ci seen gëm gi moo waral nag yàlla tofal ci na fa illam tafaalu su fekkee defu leen li ma leen digal fa zanoo na ngeen xam bi harbin cib xare mi ne laay ko ci yàlla wa rasulihi ak yonantu bi ñoom ñaar ñooy far attaqué kii lekk riba wa in tubtum su ngeen tuubee nag ba bàyyi ko fa lakum aji nekk la ñeexal leen ru'uusu amwaalikum bopp seeni alal te mooy cosaan li ngeen leble woon muy juróomi saako ya desoon mën nañ koo fayeku waaye juróom yi ngeen waroon tegal bàyyi leen ko maanaam du ngeen tooñ bay dolli waaye walaa tux la mun a déefut tooñ leen ba leen di wàññil loo xamante mi seen àq la de te wa in kaana bu tàbbee loola muy jëflaan dëgg su waxsaratin ci borom ak ñàkk fa nasratun way ron mu ñëndiku ngeen bàyyi ko ilaa may sotin ba jam ak koomal mooy jamono jamuy xamee su fekkee nag tamit loolu moo gën tana wa sa sadaqoo seen ak saraxe ñeen saraxe sax loola ci ku ñàkk gi xayrul moo gën lakkum ñaxal leen in kuntum dem nekk xam ne moo gën nangeen ngeen ko jëfandikoo de ngir yonent bi dafa wax ne képp ku muñal ku ñàkk wala nga sippil ko bor ba bu yowmal qiyaamee da nga bokk ci ñu yàllay keral ca ker gi nga xam ne genn ker amul fa gudul keram nga xadis boobu muslim indi na ko ne man anzara mu'siran aw wadaa anhu azalahu llahu fi xillihi yowma la xilla illa xilluhu rawahu muslim mu tekke ne wattaqu na ngeen ragal yow man bis tur joxoona bopp def na delloo leen fii ca bis ba ila laay jëmee leen ci yàlla ca bisa pénc ba su ma tuwafaa def na matal kullu nafsin bépp bakkan maa kasabat la mu fàggu lu baax lu bon waxum ñoom de ñoom jullit ña wala ñoom jaam ya laa yox la mun a deefu tooñ leen ba leen di wàññil lu baax luñ am wala ñu leen di yokkal lu bon luñ amut kon aaya jàngug de bi aaya ji wàccee nag fa suma bi xarab bi ne laay war a soolihi saaba yépp yooxu ne ñun de amuñ kartan amuñ force ci mën a xeex yàlla la ñuy def kay mooy lañ leb lexoon rek moom lañuy bàyyi ñi jàllar bi ko fayee ku cosaanal alal ya bàyyi nag la ca desoon te mooy intérêt boo xam ne tegoon nañ ko ca kon yow mi may déglu te xamoo woon xaraam ak riba ñi leerale ko nii lépp loo leble woon intérêt war caa tegu demal nga fayee ko sa bopp alal ba te bàyyi cosaanal riba ba li ko mooy aay ji dal na ci sa kaw ñam doon wax ak timit képp ku loola jëfandikoo ci yow rek kon maanaam alquran na ngoog aaya bii nag ma mujj a wax muy wattaqoo yawman turjaoona fihi ilallah ba ca daani laalu laaye ba mooy aaya bi mujj a wàcc ci alquran bi mu wàccee benn baat wàccatut benn aaya wàccatut boo dégg ñu ne al yawma akmaltu lakum diinakum mun a mujj a wàcc lañ ca namu mooy bi mu wàccee benn aaya buy digleeti wala muy tere wàccatut moo waral bii dafa ñëw ngir waaraate parce que liñ waroon na tere mat na li waroon a jëf tamit ci wàllu yàlla ci farata yaak sunna ya mat na moo tax aaya bi bi ñëwee moom dafa ñëw rek ngir maanaam waare xuppe tamit tiitloo nit ñi ñi bàyyi xel seen ak dekki taxaw ci seen kanam borom mu fay leen tamit seen jëf yi nga xam ne daanañ ko jëf de léegi nag bàyyi na loola mi ngi dugg ci aaya bu ñu tuddee aaya bor aaya bii di aaya bor mooy aaya bi gën a gudd ci alquraan mooy aayatu day ni mbooleem aaya alquraan yi moo ci gën a gudd tabaarakallaahu boo doon konte ay baatam daanaka ëpp na téeméeri baat moo tax boroom xam-xam yi ne nañ ku yàlla may boo jullee timis nga di ko jàng boo jullee suba nga jàng ko ci baax ak yàlla yàlla mën naa def ni aaya bi gënee gudd ci alquran yàlla mën na koo def nga gën ko gudd aw fan ci saw askan yàlla na yàlla boole guddal suñu fan te guddal ko ci lu baax ba bu ëllëgee buñ dajeeg moom rekk duñu rus kon nag yàlla jàngal nañu ba jàngal ñu nu ñu war a jëflantee ci wàllu bor lépp loo xam ne ni aju na ci moo tax mu ne yaa ayyuhal lazina yéen gaa yi nga xam ne amanoo gëm nañu alquran yéen ñi gëm alquran war koo pratiquer maa ngi leen di maa ngi leen di wax man yàlla ne idaa tadaayantum de mu ngeen a jëflante bi day nin ci bor moo xam salam le la wala xeeti bor ngay joxe xaalis ñi war laa fay xaalis wala dugub ñi war laa indil dugub wala nga joxe dugub ñi war laa andil safaan ba muy xaalis wala yeneen ilaa leen mu jëm diir musamman buñ tudd te mooy buñ xam faktubuhu na ngeen bind bor ba bind tamit diir ba wala yakkutub na bind maanaam bor ba bay na kum seen diggante kaati bun aji bind bina xat ci dëgg bina xat li ci màngu bu yokkal ki leb lum lum lebut wàññil tamit ki lu mu leble wala ya ba bu mu bañ kaati bun aji bind an ba muy bind maanaam buñ ko xooxee jëmee ko ci bind kama àll mu comme ni ko la ko xamalee allahu yàlla fal yaktub na bind mi ngi koy tawxiid ngir lim ci bëgg a tofal buy bind nag wal yum li na fite na fite allazi ki nga xam ne àll yi war na ko alxaq xaq ja maanaam ki war a fay mu moom xaq ji ñi lebal ko mooy wax ne maa ko leb ñaar fukki junne bindal ñaar fukki junne lebal ne la 15 laa wax ak moom wala la 5 ci laa koy fay su boobaa keneen ki ñu xoo nag moom muy bind ki war a fay nag di wax diir ba bor ba ña ka leble tamit di déglu moo tax mu tofal keneen wal yattaqi na ragal laaha yàlla moom mooma di fite rabbahu yàlla may boromam bu mu wax mukk ba wàññi diir ba te fekk jotagut bu mu yokk bu mu yokk kon diir ba bu mu wàññi tamit bor ba moo tax mu tofal ci ne wala yab xas bu mu wàññi min hu ca xàq ja shay an dara wala yab xas bu mu wàññi tamit min hu tamit maanaam manaa nekk ca diir ba shay an dara de fa in fa in kaana bu nekkee maanaam allazi nga xam ne alli war na ko alxaqu xaq ja mooy ki nga xam ne moo leboon war a fay su fekkee dafa nekk sa fihan di ku dese xel ma ñorut aw daifan wala muy ku lompañ ndaw la maanaam ñoragut wala ñoratut dafa mage ba ñoratut wala dafa ndawee ba ñoragut aw la yastatiyon wala attanut an yu mel la mu fite huwa moom ndax dafa muuma wala langue wi ñuy jël moom déggut ko su boobaa fal yum lil na fite wala yow kilifaam nga te mooy ki nga xam ne moo méngoo ay mbiram di waajuram wala maanaam kuñ dénk yu mel noona na taxaw maanaam fite ko bil li ci maandu waaye bu leen xem ci bind rek de wastu sidoo des def na seedalu ko nangeen seddalu seedalu bor ba ñu koy seede shaahiday ni ñaari mu seede min rijaalikum seen góor ñi ñaar ñoo xam ne gor lañ góor lañ maandu nañ mësoor nañ jullit lañ ñu jàll bi ko timit seede ko gannaaw bi ñu ko bindee fa ilam yakku naa su fekkee nekkul amuñu ñaari seede fa ilam yakku naa su fekkee nekkuñu rajulay ni ñaari góor su boobaa fa rajulun génn góor wam ra ataaneeg ñaari jigéen mu nekk ñett mi mantar law na ci ñoo xam ne ngeen gërëm leen mi ne soo daay ci ay seede ki ngir seen ak màndu ga ñu ne ko yow yàlla lu tax góor nga nekk benn jigéen ñay ñaar mu ne xelam jigéen dafa gaaw a sànku gaaw a fàtte moo tax mu di la antadi la bu bu fàttee ixdaahuma kenn sa ñaari jigéen ña fa du sa kere fàttaleef ko ixdaahuma keneen ka mu fàttali oxra moromam ma ne ko kat diir ba la 15 la woon boor ba ñaar fukki junne la woon su boobaa nag bu ñu boolee seede ak mbind lay dootul mën a amati de yàlla tofal ca wala ba bu mu bañ aswa daaw way seedaña ida ma doxoo bu ñu leen xooxee maa ngi dafa dolleeku bu ñu leen xooxee pour ñu war a ñëw joxe seede ga nañu ñëw wala tas amoo bu leen yokkat an takkutu boobu walis ngeen bind bor ba de lu bor ba tuuti tuuti ak lum bëri bëri lu diir ba jege-jege ak lum sori sori bind leen moo waral mu ne moo xam bor ba saxiiran dafa nekk lu tuuti aw kabiran baa muy bu mag ilaa jël yi bind leen comme jëm ca diir ba de zaalikum bindu seen googu ànd ak seede gi aqsatu moo gën a maandu xindalaay fa yàlla wu aqoomu moo gën a dimbale li shahaadat ñeel at seede ndax seede luñ bind dafa yomb wa àddinaa moo gën a jege àllaa tartaaboo ngeen ñàkk sikk de illaa an takun du mu nekk tijaaratun dim njaay xaadiratan moo xamee dafa teew de bu nekkee tijaaratan dim njaay xaadiratan mu teew am jaay ma ma jënd tuddiroo naxa goo xamee da ngeen ko wëndeel bay na comme seen diggante kooku defa lay sa aleykum warul leen junaaxun bàkkaara àllaa taktubuha ngeen ñàkk koo bind de waaye wa ashidu na ngeen seedeloo ida tabayatum su ngeen jëflante ci jaay de man ngeen a woo ku leen seede wala yu daara bu mu lor kaatibun aji bind ja wa aji bind wala sayyidu jaaken aji seede di borom xaq ja bu mu lor de bay wàññi wala muy nekk koo xam ne day yokku la wa in tafalu su fekkee def ngeen dégg nga fa innahu naka loolu fusuqun gën a topp la su ngeen defee lor de yéen ñiy seede wala yéen ñiy bind def ngeen gën a topp de comme ci yéen taxoo na ngeen ragal laaha yàlla ci def ay ndigleem bàyyi ay tereem wa yuallimukum bu ko defee mu xamaleen leen yàlla moom yàlla xamal leen si maslaahu seeni mbiri àdduna moo tax mu ne wa yuallimukum mu xamal leen allahu yàlla seen maslaahu mbiri àdduna yi de ndax walaahu yàlla mii alimun aji xam la bi kuli seen ci lépp lëf de suñ toppee yàlla ci ay jàngaleem duñ sànku moo tax booy lebal nit ki nga ne ko kañ ngay fay mu ne su amee bu ko lebal dara wala nga koy lebal mu ne su ma xamoon kañ laay am du ma ñëw di la leb si bu ko dara bu lay leb daal na wax kañ lay fay ci weer wi ngeen jàllar bi ku bind bor diir ba xutal ko tamit ay seede su boobaa rek tabaarakallaahu du mën a jaar fenn rawatina ji jamono moom sax mën nañ caa yokkaat gannaaw bind ak seede nañu wax waxi jaay waxi jëf la kaleb ak kaleb yépp ci portable yi wala ci magnétophone yu ndaw yi bu ëllëgee bu bëggee miim ak seede yi bëgg am fuñ jaar rek mu bëgg leen a korompu su boobaa ñu tegal ko lam waxoon ndax nit ñi dañoo ñeme yàlla boo ko mën a tappale yàlla nag nen su fekkee comme jaay ak jënd rek la ah sa marchandise mi nekkoon ci yow nekk gi mu nekk ci sama loxo sama xaalis nekk ci sa loxo mooy tekki ne jaay nga ma man tamit jënd naa waaye bu ñu ko mënee seedee mu gën a baaxati moo waral léegi borom magasin yeeg borom cantine yeeg ñaareel koo ki gis ñaareel am na facture maanaam facture ba taxaw taxawaayu seede waaye nañ am di bind facture boole ko ut ñu jege magasin ñi leen di seddeel ndax nit ñi dañoo ñemee yàlla kàccoor alal jaral leen loo xam ne lu ne la yàlla nag tabaarakallaahu ku ñu nax rek dangaa wàcc yoonu yàlla waaye yoonu yàlla ku ci nekk doo yoonu yàlla ku ci nekk tamit doo moo tax mu tafal keneen wa in kuntum bu ngeen nekkee ala safarin ci tukki su ngeen nekkee di way tukki yoo xam ne dangeen di leblante walam tajidoo te amu leen kaatiban aji bind kon fa rihaanun tayle maqbudatun nga de guñ ngëb de nañ ut dara maa ngi lay lebal fukki junne indil ma xaymaam marchandise mu tollook fukki junne ma bàyyi ko fa soo liggéey boo fay see ma jox la li ma jëloon ci yow soo fay si wut diir ba jot su ma neexee loola ma jaay ko waaye nag man su ma ko jaayee mu ëpp li ma la lebaloon naa la delloo la ca tegu fukki junne laa la lebaloon jaayee naa la ma tayle woon ci yow soixante-quinze mille naa la delloo sa vingt cinq mille ya su fekkee ne dama koo jaayee quarante mille maa lay topp dii mille francs nga war ma koo jox léegi nag li ëpp ci nit ñi tay la ni ñu koy jëfandikoo rawatina ci àll bi dañ lay lebalab junne bëgg nga bàyyi fa machine buy jar juróomi junne ñii ñaan naan yàlla bu mu dellu seet yàlla bu mu ñëw su ko defee bu heure ba jotee boo ñëwut ñu jaay ko lekk xaalis ba loolu dafa xaraam ndax lekk nga àq jàmbur saa yoo lebalee nit ki te lam la tayle ëpp li nga soo ko jaayee lu ko ëpp la ca dolleeku jox ko ko bu manqué la ca manqué demal nga fayeeku ko ko kon nag tayle loolu lay jariñ ndax garanti rek lay tekki garanti nag waxuñ nga garanti ba pare di ñaan mu ñàkk ñëw ngir bëgg ko seeyal kooku tamit dafa nekk loo xam ne lu xaraam la moo tax mu tafal ca ne fa in amina su fekkee hóolu na baax ba'dukum lenn ci yéen ba'dan lenn maa lay lebal te nekk nañ ci yoon wala nekkuñ ci yoon ñu ngi ci teew wala ñu nekk ci tukki ma ne la kon kat fukki junne ngi nii nga ne ma garanti la sama machine bi wala sama welo bi wala sama oto bi ci million lu mel noonu ma ne la man kat ni ma mel ak yow sama diggante ak yow passé nañ garanti wax ma rek ban heure ngay fay nga ne weer bu dee la cinq su boobaa yow tamit fexeel buñ la wóoloo moo tax alquran ne fal yu àddina joxe alasi nga xam ne utumi la wóoloof na ko amaanatu xoo kóoluteem ga wala yattaqi na ragal laaxa yàlla raboo may boromam ba jooxe kóolu tëge de waaye ñu hóolu la lebal la sans garante weer dee ngay dawloo waaja loolu bokkut ci ngore te moo gën a bari ci jamono ñaareel li ëpp ci nit ñi boo lebalee ñaar ngay ñàkk dangay ñàkk sa alal ñàkk sa client boo wëllëgee buy jënd feneen demaat feneen su boobaa yow ñàkk nga euh, maanaam client bi ñàkk nga tamit bi maanaam tabaarakallaahu bor bi ñu ko joxoon ndax nit ñi dañoo gore xaddi ci ji jamono alquran tofal ci ne wala takkatumoo bu leen nëbbu shahadata ak seede ga wa man yakkatum haa képp koo xam ne nëbbu na ko fa innahu naka moom aasimun aji bàkkaar la xal bu hoo xolam ba ndax xol mooy taawu seede waaye bu tuddee xol ba tuddaale na jëmm ja yépp ndax xol bi jëm mooy conduire jëmm ja yépp wallaahu yàlla alimun aji xam la bi maa tax ne xam yéen a ngi koy def de yàlla moomu lillaahi aji nekk la ñaala ko maa fi samaawaat nekk juróom-ñaari asamaan wa maa fil ardi ak lépp lu nekk ci juróom-ñaari suuf moom yàlla moomu wa in tuddu su fekkee feeñal ngeen maa fii anfusikum nekk seen bakkan ci ñaaw ñaawteef ak ci dogu aw tuxfuhu wala ngeen nëbbu ko yuhaasibkum dana regle leen ko solo leen ko bihi ci moom allahu yàlla keroog bis penc waaye aay bi fol nañ ko fa yaxfiru dana jéggal li man yasaaw ñeel ku ko soob wa yaasibu dana mu jéggal man yasaaw ku ko soob de yàlla nag mooy def loolu ndax wallaahu yàlla xadirun aji xattala alaa kulli seen ci lépp lëf de saraayax yi ñu jiitu woon bu ci nit mosaana xelaat lu bon dañ lay bindal bàkkaar ba ca xelaat ga ci njëlbeenu lislaam bu nit xelaatoon lu bon tamit dañ la koy bindal mu jigéen nag yàlla follee ci laa yukallifu laahu nafsan illaa wusaha li ngay xelaat ci sa xel mii lum bon bon ak lum ñaaw ñaaw jëm ci wàllu yàlla wala jëm ci wàllu yonantu bi wala jëm ci wàllu soxna yi walla jëm ci wàllu waajur yeeg kilifa yi feek waxoo ko wala nga jëfee ko duñ la ci bindal bàkkaar moo taxoon yonent bi doon wax ne inna allaha tajaawasa an ummati maa xaddasat bihi anfusuha maa lam taxmal aw tatakallam su ko waxee nag wala mu jëfe ko rek su boobaa ngi door di ko bindal bàkkaar moo waral nag léegi aaya boobu ñu folli ko de aaya bii nag ñi bëgg a jàng si aaya bu foor foor la muy amana rasulu bi ma unsila ilayhi min rabbihi di aaya boo xam ne muslim ak ibnu mas'ud wax nañ ne yonentu bi nee ku jàng ñaari aaya yi ci mu ak baqara bi maanaa nga jàng ko su boobaa dañ lay bindal yoolab ku naafila guddi gi yépp amana rasulu ku ko jàng guddi dañ lay bindal yoolab ku la guddi gi yépp kon nag da dund jamono joo xam ne comme baylu yaatu yombatut nañuy wut engrais baylu yaatu mooy naafila guddi gi yépp nelawoo yombatut su boobaa nag ut engrais boo xam ne li nga bay bu tuutee tamit dana taxaw taxawaayu ku baylu yaatu ku amut engrais noo Omar wax na ne dégg naa ci yonantu bi mu ne yàlla wàccee na ci man ñaari aaya yoo xam ne ñi ngi ko jëlee ca kunuusul na te ñaari aaya yooyu moo tëj baqara ku leen jàng gannaaw julleeg gexe ñoom ñaar doy nañ la sëkk walis naafila guddi gi danga xam yoolab ku naafila guddi gi bul ko dégg rek nag di ko jàng yi tëdd yi nelaw di xaran jàng ko boole ko loo mën ci guddi gi nga mën koo naafila kon yiw a gën a bari ba tey ñoom ñaar wax nañ ne ku ko jàng yàlla musal la ci mbon seytaane yàlla dina la dimbale buur yi li ñuy kàccoor kàccoor duñ la mënal dara kon aaya yoo xam ne yu ama am solo la moom tamit dana dana saxal farataay julleeg asaka ak haj màkka ak maanaam xoor ak yeneen yoo xam ne nii yu mel ni walla dana dana tabax tamit ak ngëm saxal ko ci xolam nit ba nga xam ne gëm yàllaam nga sopp yàllaam nga day gën a sax timit day gën a timit firndeelu kon amana rasulu li ci nekk ci ngëneel tabaarakallaahu ku ko doon wax du ñàkk sax ñi lay lu mujj yaafus ndax nit ñu bari dañoo bëgg lu yomb yàkkamtiwuñ lu dul ku leen wax lu yomb ñu def ko rek tëdd yi nelaw kon mu ñu xeboo loolu daal ñu xem ci li ci des nag ñu dem koo góorgóorlu moo tax mu ne amana dëggal na arasulu yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ma ci la nga xam ne um la wàcceef na ko ilay jëm ci moom min rabbi yi mu bàyyi ko ci boromam muy alquran yonentu bee njëkk a dëggal boppam moo waral nit ñi door koo di ko dëggal moo tax nit ki ba lañ koo gëm foog mu gëm boppam nit ku gëmul boppam du dem fenn tax bam ne amana dëggal na rasulu yonentu bi bi maa la nga xam ne unsila um wàcceef na ko jëm ci moom mi rabbi yi mu ci boromam wal mu'minuna gëm ña timit kulun ñoom ñépp amana dëggal nañ billaahi ci yàlla wal malaayikat yi ak malaakaam yi wa kutubihi ak téeréem yi wa rusulihi ak ndawam yi ba tax na ñoom ñooñu na ngay wax ne laanu fariqu ñun de duñ teqalee bay na ahadin ci diggante kenn min rusulihi ci yonantoom ya comme ni ko yahood yi defee bon lool gëm Muusa weddi Isa nasaraan ya weddi Isa maanaam gëm gëm Muusa gëm Isa weddi ñoom ñaar ñëpp ñi bokk weddi yonentu yàlla muhammad loolu de ñun duñu dal ñun jullit ñi ñu tënku tamit tariqa war nañoo wax loolu ne ñun de du ñu xàjjale sëriñ yi d'accord nañ ne kii la ñu yàlla wërsëgal muy suñu sëriñ waaye du tax tamit ñu contre keneen ndax loolu boo ko defee war nga jikko yahut moo waral waqaaloo wax nañ ne samir naa dégg nañ yow yàlla li ñuy digal dégg ak nangu wa atax naa topp nañ ko moo waral ñu ngi lay laaj xufraan naka ñu ngi sàkku sa njéggal juróom-ñaari ñaan la yonent bi ñaan fii benn bu ci nekk ba muy ñaan ak ko def naa bu ci njëkk mooy ñu ngi sàkku sam njéggal rabbana yow suñu borom wa ilayka jëm na ci yow almasiru delluwaay ba muy dekk ga ëllëg ci sa kanam la teeree laa yu kallafu deefu togg laa yu kallafu deefu togg laaw yàlla nafsan bakkan illaa wusahaa lu dul na moo folli aay ji ma la waxoon lahaa aji nekk la ñeexal bakkan bi maa kasabat la mu fàggu ci yiw moo moom payoor ga waaye wa alayha dal na ca kaw bakkan ba maqtasabat la mu fexee fàggu ci lu bon lu bon dafa jafe moo waral mu tëgg ko tëgg iftaala waaye gis nga lu baax dafa yomb moo waral mu tëgg ko tëgg faala rek yomb na julli jaa ngi nii jàkka ji terewuñ kenn fu la neex génn dem julli ji amut fay dara waaye boo demee tey sa baar ya bala ngaa dugg fay mu xasaw xuttu sàngara ya góor ñaan jigéen ña jaxasoo bala ngaa dem ca bëre ba seetaani fay ñenn ñay luq sumeeku di bëre loolu lépp dafa bon moo tax mu métti kon lu naka noonu tamit ki nga xam ne dafa àndal jigéen bu mu takku dana làqatu bu amul bu amee kersa nëbbatu ba muy naan ma ngay nëbbu waaye ndox ak boisson bi kenn du ko naan di ko nëbbu ndax lu baax la kon toujours lu bon dafay yomb day jafe lu baax nag moom dafa yomb moo waral mu def bii kasabat bii mu ne maanaam iktasaba lahaa maa kasabat wa alayhaa maktasabat mu teg ci na rabbanaa naa suñ borom laa tuwaaxis naa yàlla boo mu jàppee ci mbugal iñ na sii fàtte nañ aw axta yàlla ne ko nangu naa ko mu ne rabbanaa yow suñu borom tax mil yàlla bul xen alay naa ci ñun isran diisaange kamaa xamaltoo comme niñ ko xenee woon àllasina ki nga xam ne min xable min xable naa jiitu woon nañu nga xam ne ku def bàkkaar ki defut bàkkaar moo lay ray ca niti Muusaa daan génnee asaka rubool maal ñeenti million benn million boo amoon sobe ci sa yére da ngay xotti palaasu sobe ba waaye dindi ko du ko mën a dañal lii lépp ñun yàlla musal mu ca rabbanaa yow suñu borom wala tuhammil naa yàlla boo ñu teg maa laa taaqata loo xam ne déet kattu naa dañu ñëxal bii ci moom de ci toggal yi wax fu yàlla nga effacé am naa wala suñuy bàkkaar wax fir yàlla nga jéggal naa ñëxal ñu war warham naa yàlla nga ñu yërëm anta yow moom laa mawlaana yaay suñu sang fansur naa yàlla nga ñu dimbale alal qawmi ca nit ña kaafiri ñi di ñi di way weddi de ñi mën a saxal ci ñoom lay aaya yi yépp ñaan ngi juróom-ñaari yëf la moo waral benn bu ci nekk ba yonentu bi ñaan rek yàlla ne nangu naa ko nangu naa ko nangu naa ko ba jeex kon maanaam ñaan gàngoog ñaan ak la lépp yàlla nangu na ko ab julit bu ne war na di jàng lii di ko léemoo di ko ñaanee ndax dagal na lépp luñ soxla kon suratul baqara ngoog foofu la luñ ci yàq yàlla ñu ko yàlla xamal luñ ci xam yàlla nañu yàlla may kàttan luñ ko mën a jëfandikoo ñu ngi dugg ci deuxième suura bi deuxième bi mooy Al Imran mooy mi ngi jàngale waa ale Imran mooy ñooñu Imran ya ñi boroom xam-xam yi werante ci Imran mooma mën a ñi ne Imran mi nga xam ne moom meññi yonent yàlla Muusa ak Haaruna la ñenn ngeen déeréet Imran mu mujj mi meññi tabaarakallaahu yonentu yàlla maanaam sayyidatuna Maryama maanaam mu meññ yonentu yàlla Isa ñu ne maanaam Imraan moomu la ñi diggante ñaari Imraan yi nag sore nañ Imraan mii ak moroy mële diggante bi mat na junney at ak juróom-ñetti téeméer kon diggante bi lu sori la li gën a jege nag ci saar wi mooy Imraan moomu gimi moo waral tudd na seen xissa ci alquran ci saar wi te dañ ko jàng ca kanam bala ñoo sori bu ñu waxee nag ala imran boo ko namee ñooñi imran mu njëkk ma kon mooy Muusa ak Haaruna su fekkee ala imran yaa ngi ci namm ñooñi imran mujj ñi mu mujj mi kon mi ngi ci nammu sayyidatuna Maryama ak yonentu yàlla Isa kon nag ala imran na ngoog saar wi Madina la wàcc moom saar wi ci boppam nekk na ñaar téeméeri aaya moom la saar wi nekk ñu ne ñaar téeméeri aaya ak benn la ñenn ñe ne ñaar téeméeri aaya bu manqué benn la moom saar woowu nga xam ne mooy Al moom saar wi di Al moo nekk noonu boo seetee tabaarakallaahu ay baatam ñetti junney baat la ak ñeenti téeméer ak juróom-ñetti fukk boo seetee ay xarafam nekk na fukki junne xaraf ak juróomi téeméer ak ñaar fukk kon saar wi nekk na saar woo xam ne wu sakkan la moom lañ fas yéene dugg ak yéen te wax naa la tabaarakallaahu xemraan male ak xemraan meeg li ci boroom xam-xam yi wax ak li ci aju aaye bi nag mi ngi wàcc moom saar wi ci délégation boo xam ne ay nasaraan lañ woon bàyyeekoo najaraan nekkoon juróom-benn fukk gawar ñëwal yonantu bi ca Madina fukk yaa ñeent ñépp ay kilifa lañu woon nekkoon tamit ñetti kuréel yoo xam ne ñoom ñëpp ñoom ñëpp seen mbir mi ngi dellu ci ñetti kuréel ba ñëwee ci yonantu bi daggi xansee teg moom ne ko yàlla la ñenn ñi ne ko yaayam yàlla la muy yàlla ñeneen ñi ne ko doomi yàlla la ñu indi nag ay lay yoo xam ne teguwut fenn ñu jàpp ne xeesa yàlla la yaayam yàlla la yàlla yàlla la ñu ngi sukkandikoo ne ko xanaa yow yonent gisuloo yàlla buy wax day wax ne inna def na ñun jamono jooju mu def ko lim nekkut kenn tax mi ngi ci namu moom ak soxna sa muy sayyidatuna Maryama ak timit maanaam isa ña ne ko moom yàlla la mu ne ko day rey isa dana fekk ku dee mu dekkil ko ñoom tamit ñu jàpp ne doomi yàlla la ñu tegtaloo na mi ngi nii amul baay yaay rekk la am yonentu bi nag ne leen ndax nangu ngeen ne yàlla moom du dee ñu ne ko ah kooku d'accord nañ ca mu ne kon nangu ngeen ne Isaa dana dee ñu ne ko waaw mu ne kon du yàlla bu doon na yàlla du dee mu ne leen nangu ngeen ne yàlla mooy formé doomu aadama ci biir ruxum yi loo xam ne kenn fekkul ko ci ñu ne ko waaw mu ne loolu xam ngeen ne kenn mënu ko dul moom mu ne kon kooku rek mooy yàlla ci xel yooyu ak ci layu leer yooyu la yonent bi jaar ak ñoom tabaarakallaahu ba daane leer moom tamit nag ubbee na ko ni mu ubbee lenn ci boppi saar yi te mooy alif laam alif laam miim nga xam ne yàlla xam lim ci namm te waxoon naa la ñu ko doon taawil lañ ca waxoon ca bopp saar wa ñenn nga ne alif gi day junji bépp tur yàlla bu bàyyi ko ci alif ni ki ahadun laam ngay junji bépp tur yàlla bu bàyyi ko ci laam ni ki latif miim ngay junji bépp tur yàlla ko ci miim ni ki majid waaye foo fekk yàlla ubbee boppi saar yi rek ma ngi cee tofal téeréem bi ngir war lottuloo gim lottuloo ay jaamam foo jàngee xiimim tanzilul kitaab alif lam mim dalikal kitaab alif lam ra ba tey gis nga kitaab rek moo cay tegu ba mu fi demal ne alif lam mim mu tekki naan maanaam allahu laa ilaha illa huwal hayyul qayyum nazala alaykal kitaab kaafi ya ayn sa zikru rahmati rabbika taahee ma anzalna alaykal quran li tashqa kon toujours boppi saar yi moo xam ya composé wu wenn xaraf ni ki xaaf wal quraanil majid moo cay tegu saat noonu ya composé wu ñaari xaraf ya composé wu ñett ya composé wu ñeent ba ya composé wu juróom bu ci yàlla ubbee aw saaram rek téere ba la cay toxal ngir waree lottuloo gi lottuloo ay jàng moo tax mu ne allahu yàlla laa ilaha benn buur ilaahu wandere moom alxayu mooy aji dund ji nga xam ne dund jiitu dundam nga dee tamit du ko mujj alqayoomu mooy kiy toppatoo mbiri jaamam yi mooy ki nga xam ne nazala wàcce na alayka ci yow yonantu bi wàcceeg détail alkitaaba téere ba di alquraan téere boo xam ne làmboo na xaq ci dëgg mu saddiqan mbir mu muy aji dëggal li maa bay na yedde yi ñeex li ko jiitu woon ci ay téere wa ansala moo wàccee wàcceeg détail moo wàccee kon wàcceeg mbëmbëstël a tawret tawret wal injiil ak linjiil min qablu njëkk wàcceeg alquraan bii mi ngi bàyyi ko ci ansala yunsilu insalan bala bàyyi ko ci nasala yu nasilu tansilan alquran dafa wàcc wàccab détaay ci diiram ñaar fukki at ñett muy yëj yi téere boo waxati bu dul moom benn bis benn heure benn jamono moo tax ansala lay jël moo waral mu ne ñëw na huddan di njub mbir mu muy njub li naa si ñeel nit ñi wa ansala moo wàccee ba tey moom yàlla alfurqaana téere yi moo wàccee téere yi alfurqaana ñi teqali dëgg ak fen mu dugal ñetti téere yépp tawreet linjiil alquran yàlla moo leen wàccee ñi téere yoo xam ne dañoo ñëw ngir teqali dëgg ak fen moo tax mu ne wa ansala moo wàccee téere yi alfurqaan ñuy teqali dëgg ak fen de ina na daal ñi nga xam ne kafaroo ñoom weddi nañu bi ayat lay ci ay yàlla yi di alquran ak lu dul moom lahum dal na seen kaw azaabun mbugal shadidun moo xam ne mu tar la de wallaahu yàlla azizun aji not la ci nguuram waaye nekk na koo xam ne zuntiqaam borom ak mbugal la de inna laa naka yàlla laa yaxfaa du nëbbu alayhi ci moom shay'un dara loo xam ne dafa nekk fi ardi ci suuf si wala fi sama caatu nekk ci asamaan si de lépp xam na ko jusiyaat ya ak kulliyaat ya huwa moom yàlla allazi mooy buur ba nga xam ne yu sawirukum dana mu melal leen ma ngay delloo yahuud ya fil arhaami ci ruxum yi kayfa yasaawu naka la ko soobee laa ilaaha mu benn buur ilaahu wa ndere moom al asiisu mooy ki not ci nguuram alxakimu mooy ko xere ci njëfteefam de lii nag yéen nasaraan yi najjaraan yi xam ngeen ne yonentu yàlla Iisaa mënut ko kon nag delloo naa leen yéen yahuudi ak nasaraan yépp ne kenn rek a yàlla muy yàlla Usayru du yàlla mbindeef rekk la Iisaa du yàlla mbindeef rekk la woo moom yàlla alazi mooy buur bi nga xam ne anzala wàccee na alayka ci yow yonentu bi alkitaaba téere ba di alquran minu am na ca téere ba aayaatun ay aaya muhkamaatun yoo xam ne yuñ xereñ la mu nekk yu leer ci tegtale hun na ñooña hun na yooya téere bi yu ñu sukkandiku ci ay xatte yi wa uxaru yeneen ya mutashabihat dafa nekk yoo xam ne dañoo lënt ñu lu maanaam ay maanaam te mooy li mel ni boppi saar yi ma la waxoon ci commencement ba fa amalasi na daal mi nga xam ne fii qulubihim aji nekk la seen xol sayqun jeng waris dëgg fa yattabi'una dañuy topp ma tashabaha loo xam ne lënt na minu ca moom ibtigaa al finnati ngir sàkku rek ak réer ak réere laate wa ibtigaa taawilihi ak sàkku am firéem waaye wa maa ya'lamu xamut taawilahu ma ilallaahu ndira yàlla de mubtada la wa raasiquuna way sax ña mooy mubtada mi fil ilmi ci xam-xam yaquluuna ñoom dañuy wax ne amanaa ñun de gëm nañ bihi ci mutashaabih waaye nag kullun képp ci muhkam ak mutashaabih gëm nañ ne min indi rabbinaa mi ngi bàyyi ko suñ borom wa maa yatazakkaru du waaru ilaalul albaab ndira borom xelu sell ya de kon alquran am na muhkam alquran am na mutashaabih su ko defee nag muhkam yi ñaareel mooy nekk ndigle yeeg tere yi loolu leer lay doon mutashaabih yi ñaareel mooy yenn ci boppi saar yi te waxoon naa la ñaata boppi saar la woon nekk genn wàllu xarafu hijj yi di fukki ak ñeent ci xaraf su ko defee tamit composé wu ci benn wala ci ñaar wala ci ñett wala ci ñeent wala ci juróom ñenn ñi nag dañ fa nekk di ko jéem a taawil waaye nag nga sax ci xam-xam ñoom dañuy wax ne ñun xamuñu firéem waaye nangu nañ ne lépp ci yàlla la baxee ko gëm nañ ko comme niñ gëmee muxkam yi yonent bi daana wax ne maanaam li ma gën a ragal ci yéen ci sama xeet yi mooy ñetti jikko bi ci njëkk mooy ñetti jikko yooya bi ci njëkk mooy danaa ragal rek mu jë maanaam jamono ñëw alal bëri ku ne am alal ci lañ toll xale bu gis ngay am amagul 30 am lu toll ci ay milliards ñi am ay cinq cent millions yu ndaw lañ mu ne bu ngeen xeggoo foofu danaa ragal ngeen xañaanaante di rayante bi ci tegu tamit ragal naa jamono ñëw ngeen hubbi téere bi su ko defee ab jullit di ko xool di sàkku ci moom ci mutashabihi di ko jéem a taawil tawamaa yaalamu taawiluhu ilallah mu ne tamit nag tabaarakallaahu dana ragal am yàlla dolli ci yéen xam-xam ñu teg ko fële fàtte téere bi ba dootuñ ko jëfandikoo ko duñ ko sax laaj tey fu mel ni ñu bëri jëfandikoo xam-xami tubaab yi nga xam ne tekkiwu dara ak xalaati américain yi nga xam ne du dara maanaam kooka lañ gën a gëm ne mooy boroom xam-xam def ko intellectuel kuy waxee alquran sax dañu jàpp ne kooka ku tardé la kon ñett yee yonantu bi ragaloon ci ñu ñëpp xegg nañ ca tey la xalal gën a bëri tey la iñaan gën a bëri ci rayante ci alal ay doomu ndayang koy def ay doomi bàyyi ay mbokk ay xarit ay jegeñaale di rayante rek ngir alal waaye tamit tey la gën a négliger alquran teg tege ñu ci bari bu alquran faloon seeni maam ñu nekk yi wëlliyu mu fal seeni baay ñu nekk nit ñu baax ñoom xóoluwuñ palak alquran dañ ko fi bàyyi dem di jàng ay nasaraan naan karla mag si neenaak diw neenaak ñoo xam ne tekkiwuñ dara maanaam xalaat yu tekkiwu dara yoo xam ne ci xeweeg sàppi rek la mujj ñenn ñeneen diw ci maanaam benn falsafa benn benn benn ca nangam nee nangam di jël maanaam xalaatu falaasafa yi loolu lépp day tardeel nit alxuraan nag mooy téere bi du xewe du sàppi tabaarakallaahu ku ko jàpp jàpp nga ku dëgër koo jàpp tamit jàpp nga fu dëgër kon ñett la seen daal yi nga xam ne kafaroo weddi nañ lan tuux ni ya du jañ deefu jañaleef anu walis leen am waalum seen alal ya wala awlaadum jàkkan seen doom ya mi ne laay ci mbugalam yàlla ma say am dara wulaayka yooye gaay hum ñoom waqoodu naari ñooy matam safara de soo bëree bëri alal wala nga bëri njaboot te teguwoo ci njub soo lëggee tegoo sa doom yi ci njub sa ji defoo ci lu baax yaa ngi ñoom ñëpp matt ngeen di soppeeku tàbbi safara moo tax mu nekk dë bi aali firawna comme baax ak ñooñu firawna ña wala si naa ña nga xam ne min qablihim jiitu woon nañ leen ci ay xeet niki nit yaat ñaak sa muudo yaak ñi mel noona ñoom de kazzaboo weddi woon nañ kazzaboo fen loo woon nañ daayat naa suñ kawteef yi ci suñ aay yi moo waral fa aqasahum mbugal na leen allahu yàlla bisunoo biim seeni bàkkaar wallaahu yàlla mu mbugaloo leen shadidul xeqaabi ku tar mbugal la ni lay mbugalee tamit yahood yi ak nasaraan yi ak ñu bon ñi di musrikiina yu taxaw di la weddi yow yonent bi fa yàlla jaaroon nag ñële lay jaar ak ñi ak ñii ndax ñoo ñaa ëppoon kartan gën a mbëru aaya bii nag boo gisee mu wàcc yonantu bi bim ñibbee si bim ñibbisee ci xare bu ñu tuddee badar dafa tëkku woon yahood ya nekkoon madina muy bani quraysata ak banu nadir ñooña nag commencé di bàkku ne ko ah, yow ni nga gañe gaa yi moo tax ngay bàkku suñ kaw ñooña ay armaar lañ xamuñ xare dof lañu waaye bis boo dalee ci suñ kaw da nga yëg ne ñun ñoo ko yor bañ waxee loolu yàlla wàccee aaya ji ne leen bis bu dalee bu yonantu bi dalee ci seen kaw da xam ne yoru leen dara moo tax mu ne qul waxal yow muhammad tontu la si na ña nga xam ne kafaroo weddi nañ ca yahud ya ne leen sa tuxla bu a def na nott leen yonantu bi dana xaree yéen not leen loola yàlla def na ko mu gën a sadd ki ñoom galak ray banu quraysa dàq leen dàq ba banu maanaam nadir ñu dem fële ca saam ca asihaat mu sadd ki ñoom galak wa tuxsaru na def na pang leen ilaa jahannama jëmee leen safara wa bi sa bon na almihaadu lal ba te la lanab safara ba mu ne nag kaay leen ngeen xam ne lii doy na xalam ne xat nekkoon na laakum ñeex leen aayatun kawtéef goo xam ne man ngeen cee xalam fii fi atay ni ci ñaari kuréel yi dajee xoon ban ak ban mu ne fi maanaam ñaari kuréel yoo xam ne iltaqataa dajee xoon nañ keroog xare badar fi atun am na kuréel bu gëm yàlla tuqaatilu di xeex fi sabilillah ngir yëkkati diine yàlla ji nekkoon ñetti téeméer ak fukk ak ñett muy amee woon lu dul ñaari fas juróom mel ni mbubbi koŋ juróom ñetti jaas yi ñooñu la woon muhaajira yi ne nekk ca juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ña ca des ñépp ca limba di ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-benn yépp nekk waa lansaar ñële àll yu ibnu abi talib mooy seen njiit yore drapeau ba ñële di waa lansaar ku ñu tuddee saad ibnu obada moo nekkoon seen njiit yore drapeau ba waaye ba guerre ba sottee fu ñu mujj rey nañ ca xéeféer ya matoon junne juróom-ñaar ñaar fukk jàpp ki ñoom jaam juróom-ñaar fukk ñoom nag ñi ngi rey ci ñun fukk ak ñeent te fukk ak ñeent ñooña jàppal ne maanaam muhaajiriina yi ñooy juróom maanaam euh, fukk ak ñeent lañ rey rek ci ñun su ko defee waa waa waa lansaar ñooy juróom ñett ñaar ña ca des ca lim ba mooy muhaajiriina yi yàlla na di nettali xare booba ne la xadd maanaam yàlla wax ne maanaam xadd kaana nekk na làkkum ñeex leen aayatun kawtéef ngeen mën xalam fii fi atay ni ci ñaari kuréel iltaqataa yoo xam ne dajee nañ ca xare badar fi atun kuréel bu gëm yàlla mu xasaf moominatun ji tuxaatilu boobu dana xeex fii sabillaay ngir yëkkati diine yàlla ja waaye nag wa uxraa beneen kuréel ba kaafiratun bu gëm yàlla maanaam bu wedd yàlla la mu mu xasaf maanaam fi atun ja ne uxraa rek kaafiratun yaraw na hum dañ ñu gisee féer ya mislayhim ñi seen ñaari kem li ñu xëppee man na ñaari kem ndax ñun maanaam ñetti téeméer lañ fukk ak ñett ñoom ñi mat junne rë yàlla ay ni ci gis ak bët wallaahu yàlla yu aydu dana mu dëgëral bi nasri ci ndimbalam man yasaaw ku ko soob de inna fi naka nekk na ci loolu ñu tudd lim bu tuuti bi mu jël dumal lim bu mag bale la xibratan ak xalam li ulil absaari ñaar borom xel yi de kon gis nga ko ixtibaar lañ ko tuddee ci balaaxa fële dafa ne fi atun xasaf minatul fii mu ne wa uxra indi kaafiratun kon bi mu xasaf maanaam fi atun ji indi kaafiratun kon gis nga ko bañ xarek ñoom ñi rey leen kon aaya jooju loolu lay tekki bi maanaa moo tax mu ne ñi koy mën a xalam nag mooy li ulil absaar